bi laa kàddu gàngoog asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala euh, ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi ñoo ngi nuyu mbokk yi di leen ziyaara di leen ñaanal jàmm ak xéewal mucc ak sutura di jiital ci nuyoo yi sunu kilifa sëriñ Habib Kandji ak rakkam sëriñ Pape Kandji Baye Daara ak mboolem njabootuk suñu maam Thierno Kandji yëpp nuyu suñu rakk yi ak njabootuk maam Thierno Kandji yëpp di ndokkeel ñëpp it tabaarakallaahu di nuyu waa Baol Média di am mbégte lool tabaarakallaahu ci seen teewaay ci bis bi nga xamante ne ñoom samay wëllëre lañ ah, ah solo su bis bi nag mooy guddi gàmm la yonent yàlla Muhammad sallallaahu alayhi wa sallam def màggal juddoom ndax it ah, juddoom moom tabaarakallaahu da nga koy màggal wala ngénte rek bis bi nag bis la boo xamante ne maam Thierno Kandji moo ko sosoon bi mu ñëwee njaaram ci 1901. di ko taxaw di ko taxaw di ko ànd ak mbokki taalibe yi ak soppe yi ba 1945 sunu borom jëlee ko fi mu bàyyi fi ak njaboot ka ca mag nag di Serigne Cheikh Kandji di taawam tabaarakallaahu wuutu ko moom it di taxaw bis bi ci 1945 ba 1998 yàlla jëlee ko fi moom it teg fi rakkam Serigne Mamadou Kandji sunu maam moom it mu koy taxaw ba 99 mu bàyyi ko fi Serigne Habib Kandji di ko taxaw ba jamono yi ñu nekk nii. di ko ñaan mu yàgg koo taxaw lool Kandji Socé tabaarakallaahu ndax it euh, toogaayam ci kër gi ak ci njaboot bi ak ci diine ji ak ci tarixa bi yaatal na ko ne ku nekk xam nga ne gàmm gi fu ko maam Thierno bàyyi woon sëriñ Cheikh Kandji bàyyi ko fa sëriñ Mamadou Kandji ko fa sëriñ Abib yokku na ko lool tabaarakallaahu loolu daal mooy solo su gàmm gi Amadou foofu la tàmbalee. Euh, jërëjëf sëriñ Alaaji waaye bëggoon nañ ay leeral rek ci kan mooy maam Thierno Kandji ak fan la sosoo. waaw maam Thierno Kandji moom su ma la koy misaal mooy góorug yàlla la woon wàllu yàlla la woon taalibe Cheikh Ahmad Tidiane Chérif la woon muxaddam la woon imaam la woon moom mi ngi eh, cosaanoo Saalum waaye Jurbel gii tabaarakallaahu fii la basé woon fii la nekk fii la def mission tamit yàlla may ko fi njaboot may ko fi ay taalibe may ko fi ay tool jox ko fi jàkka jox ko fi tabaarakallaahu lii nga xamante ne moo di juma jox ko fi jullikaay jox ko fi quartier Cerno Kandji kon maam Cerno tabaarakallaahu jox nañ ko bopp euh, nit la koo xam ne tabaarakallaa wax naa ko barki démb ci forum ba ma ne maam Thierno Kandji li góoru yàlla yëpp di am la am li góoru yàlla yëpp def la def waaye dafa nekkoon koo xamante ne moom dafa nëbbatu woon ci àdduna làqatu yor ji koy saalum saalum tabaarakallaahu yàlla dong moo ko ñoroon leneen ñoroon ko loolu yàlla moo tax taxi nag mu làq ñu boppam lool lool lool ba damay faral di wax ne ku koy xool ci ay euh, maanaam ci wàll àdduna doo ko fa gis moom ci yàlla rek nga koy gis ndax damay faral di wax ne modeste sam weesuwul keroog bi nga xamante ne defar nañ seeseen gi nga xam ne fa la ñuy denc nit ñi ki génn àdduna dafa leen ne moom dafa bëgg bu génne àdduna nañ ko suul foofu ñu ne ko teñ laa def ci jàkka ji comme ni ñuy defal kilifa yi mu ne leen déedéet nañu ko def foofu ndax ay nawleem du takk digaale ñoom ne ku génn àdduna ñu yóbbu la fa ba pare moom mu bàyyeen fa ñëw tëdd foofu ñu toog ko kon kooku nit ku modeste la nit ku simple la yàlla ñu ko yàlla fayal amin ba te rek sëñ Alaaji euh, wax nga ñu lenn ci maam Thierno Kandji ak euh, jaar-jaar bi nga xam ne def na ko muy jaar-jaar bu am solo fii ci diwaanu Njaareem waaye diggante mag mag ña nan la demoon ko ci mel ni maam borom Touba ndax keroog am na lu ñu ci junj ca forum ba euh, mu doon nag loo xam ne lu am solo la ba tax na keroog ñi réeré woon maam Thierno am na lu ñu ci jot a xam diggante mag mag ñi rawatina maam borom Touba. waaw digganteem ak mag ñi nag macha allah lépp rafet ndax fii ñu nekk ci Njaareem moom moo fi nekkoon ak maam Serigne Touba ak maam El Hadj Mbacke Tandiang waaye seen diggante rafet na ndax alaaka bi am muy relation bi nga xamante moo nekk digganteem ak kër Alaaji Mbàkke Tànjang rafet na ba ay sët ñi ngi ci kon loolu rafet na ndax digganteem ak Alaaji Mbàkke Tànjang rafet na diggante sëriñ Cheikh Kandji ak Alaaji Mamadou Tànjang rafet na diggante sëriñ Abib Kandji ak sëriñ Aji Tànjang ak ñamu maaseel jamono rafetaloon nañ ko tey ki fi nekk sëriñ Omar it noonu la mel ci kër gi sama diggante ak sëriñ Baña Tànjang tabaarakallaa ko ne xam na ko bu dee digganteem ak sëriñ Tuubaa loolu yàgg na ñun dafa jiitu suñu juddu ndax li ñu wax mooy wax nañu sëñ Touba 1912 la ñëw njaareem te wax nañu bi mu ñëwee njaareem ci mu fi njëkk a jox loxo keroog bi mu wàccee fee ca école régionale maam Thierno Kandji la nuyonteeg moom laaj ko sant bi mu ne ko maam Thierno ne ko bu dee fii ci Bawol Kandji la bu dee Saalum Dramé la mu ne ko Ahmadou Mbacke ñu nuyonte fasante kóllëre kóllëre ga rafet lool ba sëriñ Touba tabaarakallaahu di jël teranga gàmm di jël nag di ko yónnee maam Thierno di jël teranga warga suukar ak yu am solo yi tabaarakallaahu di ko yónnee sa maam sëriñ Cheikh Kañ wax na ma ne sëriñ Touba sax dana am ay gan yoo xamante ne bu dee ay ganu sérif lañ te ñu bokk ci tarixa Tijaan bu ñëwee daan leen yebal fii si maam Cerno Kañ ñu daal fii ci këram kon loolu relation la boo xamante ne bu jiit suñu judd la waaye relation bi sëriñ Touba demul maam Cerno dem mu dagg dafa continuer ndax sëñ Mourou Moustapha mi fi toog digganteem ak sëriñ Cheikh Kañ noonu la rafetee woon tabaarakallaahu sëñ Abdoulaye sëñ Saliou ku fi toog xalifa rek tabaarakallaahu ba ci nga xamante mu yàggul rek sëñ bi mën la yónni mu ànd sama rek sëriñ Bayaas fekk ko poroxaan yàggul dem seeti ko ndokkeel ko ci poroxaan gi ñu waajal yëgaaleel ko bis bi tamit kër ba ñu eggee ñun la njëkk recevoir te ndox ñoo julleeloo tisbaar dafa egg si rek ñu dugal ñu ma nekk ci ginnaawam mu nekk ci kanam mag sëñ baay ñu julleendoo sëlmal ñun la sa recevoir ci salon privé am ci biir waxtaan ak ñun kontaan lool teraanga mit mu teel ko ca sama xarit sama rakki sëriñ Mahfouz Mbacke démb def na teraanga boobu te da koy def ndax nee na sëñ nag daan na ko jox maam Thierno Kagne te moom taalibe sëñ Touba la sëñ Touba ko ñor moom lay liggéeyal di sëtam moom it nag boobu da koy def def na ko daaw def ko daaw yëg ren tamit defaat na ko démb yónni na ko kon loolu relation la boo xamante ne dafa jiit suñu juddu te day rafet ba tey bu dee taalibe sëñ Touba yi nekk njaaram gis nañ bëggee kër waaw loolu daal mooy laa ci mën a wax. jërëjëf kon bu ñu jël si waatee ci bis bi nga xam ne tey mooy 7 euh, mars muy 118e édition euh, fii nga xam ne ni moom mooy sa dalwaay fekk nañ fi mbokk taalibe yi macha allah bernde yeeg lépp jàppandi na euh, taxawaay bi nga xam ne amee nga ko ci nekk loo xam ne lu ñëpp rafetlu la waaye sa digganteeg taalibe yi ak benn laaj rek boo xam ne xam naa dañu koy tëjee gaynde njolloor gi lan moo ko indi. tabaarakallaahu Amadou <laughs> waaw xam nga gars yi ñoom tabaarakallaahu taalibe yi ñoom danoo baax rek. te yàlla dogal ñu am ci man cofeel koo xamante ne damay faral di wax ne ñoom danoo baax rek waaye man ama solo sax guñu may soppee waaye xëy na bu ñu ma dee soppit xëy na sëriñ Abib mi sama wayjur la wala sëriñ Cheikh Kagne mi sama maam wala maam Thierno wala sax xëy na dañuy seen séentu ci man Cheikh Tidiane wala it mën naa ne sax xëy na cofeel gi ma am ci yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi moo tax ñu sonn ci bis yi tabaarakallaahu gaynde njaloot gi nag li ko waral dafa am sama benn taalibe bu nekkoon fii yàlla dogal muy tàggkatu yonent bi moom it tabaarakallaahu yàlla mayoon ko loolu mu mën a macha allah comme Badou Foy mii ni mu mënee fent ci ay woy ak ñoom Morlom ndax xale ku ci nekk bëri ay woy ma fental di ko woy moom moo ko waxoon muy Modou Mbassa Faye tey mi ngi Argentine ca daayira foofu moo ko woyoon naan mbëri ngi ci géew bi dee leen taawu Abibo moom moo ko kentoon moo tax gaa yi jël turu gaynde njaloor bi dama ko woowee loolu la taalibe nag ni koy gisee rek tabaarakallaahu gaa mi goom bu ñëw fépp fa taalibe nekk rek da ngay ñëw bàyyi sayte ñu mënta ñëw it danañ jël seen addiyee yónnee ko ñu ñëw ak ki ñëw sax toog di sonn di ñaq rek damay jàpp ne ñoom ñëpp rek def nañ lu baax ndax mbëggeel la ak cofeel la kon ñoom it man mënuma leen a fay waaye mën naa leen a yàlla sunu borom ñaan yàlla yàlla defal leen ay xéewal yaatu ñoom ak seen ay njaboot yëpp tabaarakallaahu ndax amatu gëm-gëm dafa sori nit bu xasee sukku ceew rek jox la sa bopp rek loolu lu foor la ndax nit du jokk ci mukk ku mu soppul loolu nag boo amee nag nga xam ne sama diggante ñoom yàgg na ba tey te lu ma nekk ñu nekk ci man lu ma mën mooy ñaanal leen yàlla yokk leen bu baax a baax baax seen taxawaay ci man seen taxawaay ci kër gi ndax lu ma sagal rek la ñuy wër lu ma sagal rek la ñuy wër tabaarakallaahu loolu daal moo ci nekk moo ci nekk li nga xamante ne moo am solo sëriñ bi lan ngay tëjee sa kàddu yu mujj li may tëjee mooy am mbégte loolu tabaarakallaahu ñaanal ñi nga xam ne mooy waa Baol Média nga xamante ne ñoom daaw 31 bi gis na sama guddi ga nuyu di prière bi taxawaay bi ñu ci def gàmmu daaw it gis na taxawaay bi def tabaarakallaahu muy Ibrahima Mamadou ak soxna Warxa tabaarakallaahu yow mi nga xamee ne yaay nekk sama diggante ak ñoom muy Amadou yow sama xarit nga sama taalibe nga sama conseil nga sama lépp nga maa ngi lay ñaanu baax nuyu it sécurité bi may àndal muy sécurité waa génération vert blanc ak daayira yëpp nag bu ma leen naree lim damay juum waaye daayira yëpp yu mag yi yu ndaw yi tabaarakallaahu góor ñeeg jigéen ñi waa njaareem waa quartier bi tabaarakallaahu ak ku mel ne docteur Amane Niang maa koy beral nuyoo maa koy beral ñaan tabaarakallaahu ak ku mel ne Pape Abou Camara bu ñu limee daal dinañ waaye daal sant naa ñëpp gërëm naa leen ndax am nañ mbégte lool lool lool ñaan it sama soxna yi tabaarakallaahu yi ma yàlla booleel ci seen taxawaay ci man ci gàmm gi ndax damay faral di wax ne gàmm gi ñoom buñ ko gàmmoo suba dimanche noppalu altine ba lañ koy waajal mu jëm déwén tabaarakallaahu ndax boo xoolee li ñuy fere ci gàmm gi ak ñoom ak taalibe ñun nga xam ne du benn bis bu ñu wàcc benn fan waaw ndax bañuñ ci dara taalibe yi bañuñ ci dara yàlla na yàlla sàmm leen te aar leen yokku leen bu baax gan yi ci ñëw ñu delluwaat ci jàmm ñoom ñëpp eggaat ci jàmm ak salaam tabaarakallaahu loolu daal mooy kàddu yi ma ci doon sànni lu ci jub ñu xam ne ndimbal yàlla lu ci dëng it ñu xam ne du mat di ñaan it sëriñ Abib yàlla yàggal ko fi lool lool sax tabaarakallaahu comme ni ma koy euh, faral di waxee rek ba yéene yi ma am ci kër gi ci diina ji tarixa bi ci mbokk bi ci islam bi lépp mu mottali ko ak sagom te ànd ko ak ñun naa li mu def yëpp yàlla def mu fekk ko ci sagom ak ñun te kenn bañ a manqué tabaarakallaahu ñaan suñu yaay tamit soxna Ndey Njaay yàlla bàyyi ko fi mu gudd lool ak wér ak mboolem rakkam yi ci kër gi tabaarakallaahu loolu daal mooy kàddu yi nga xamante mënu ko ci woon ñàkk sànni Euh, jërëjëf kooku mu nekkoon sëriñ Alaaji Kanji Gaynde Njolor ibnu sëriñ Habib Kanji al imam